yegg si nañ ci ñu fas yéene leen ko jukkil euh, fas yéene ko door rek Walf Quotidien mi xëyee mbirum Ousmane Sonko yéen kabine ñaari mbir a ngi nii teg nañ ko ci ndoddu Ousmane Sonko euh, bokk na ci càccum téléphone ak euh, foqar ci téléphone ci ab takk der ak itamit woote fitna yéen cabinet procureur ñaari mbir yi la teg ci lu diis ci ndoddu Ousmane Sonko Walf Quotidien moo ñu ko yëggee yéen cabinet baa ñu koy dégtal ne bu ñu deful ndànk ñetteelu mbir goo xamante ne mun naa daneel Ousmane Sonko nag ay ñoñam jóg taxaw moo xam euh, fii ci euh, Ndakaaru ca Grand Dakar Kër Massar ba ca Ziguinchor ñoom ñëpp jóg nañu taxaw ngir mettitlu anam ya ñu tegee loxo Ousmane Sonko ay avocat am ne tegum loxo gi jaaduwul ci yoon am na ku doon filmer Ousmane Sonko te yeggut euh, njiital Pastef foqat ci téléphone ba yóbbu ko noonee la ko takk der yi jële ba yóbbu ko ca commissaria central yéen cabinet enquête gis ne càccum téléphone ak woo fitna woote fitna ci askan wi yéen cabinet lu diis lool daanaka dennu la la goo xamante ne moo daanu ci njiital Pastef Ousmane Sonko euh, procureur moom lam koy toppee càccum téléphone ak yëfit na yéen cabinet avocat défense bi mooy avocat Ousmane Sonko euh, jóg nañu taxaw xamle ne ci jamono ji kenn du ci euh, mun a tegee loxo Ousmane Sonko ndax lañ ko toppee moo jaaduwul gannaaw coow li ne cobboy ci mbirum aji Sarr ak mbirum Mame Mbaye Niang tey jii ñu ngi fexeel Sonko bu ñu ci ay ñoñam yu ci Ndakaaru ñaxtu li ni mel yéen cabinet Le njiital Pastef eh, teg nañ ko loxo démb yéen cabinet Ousmane Sonko ma nga garde à vue lañ koy toppee eh, bokk na ci càccum téléphone ak woo woote fitna yéen cabinet nag lu jëm ci anam yañ ko tegee loxo dondu ko metti moom njiital Pastef ñaawlu na RG yi nañu doxale ci mbiram eh, dañ ko fitnaal yóbbu ko ci dole ak ci saasi ca commissariat central mu ngi ci yéen cabinet Le Quotidien yéen cabinet di l'info ne Ousmane Sonko teg nañ ko loxo gannaaw li nga xamante ne toppee càccum mbirum téléphone ak i tamit euh, yee fitna yéen cabinet gannaaw ñaari dossier yi le mbirum Adji Sarr ak euh, mbirum Mame euh, bokk na ci tey ji njiital Pastef ñu mun ko toppaat ci leneen kenn ci jege ñaalem di Abdoulaye Tall jàpp ne mbiri mbiru politique la ba tax na politique rek moo ko mun a fay daañu jóg taxaw jàmmarloog nguur gi fi ne maître Cheikh Khoureyssi Ba di avocat Ousmane Sonko jàpp ne mbir yi weesu na léegi contumace ga ñu doon toppee Ousmane Sonko tey bu fekkee ne teg nañ ko loxo lépp mun nañ ko neenal ci dossier yi nga xamante moom lañ doon toppee Ousmane Sonko moo xam ci mbirum mambay Mbaye Niang ci wàllu Prodac moo xam ci mbirum euh, Adji Sarr euh, ci wàllu Sweet euh, Beauté keneen ci avocat am di maître Demba Séré Bathily jàpp ne itamit lu aju ci anam ya ñu tegee Ousmane Sonko loxo moo jaaduwul ay pexe la yoo xamante ne politique moo ca laxasu ba tax na Parcelles Assainies Patte d'Oie Colobane ba ca itamit Médina Ouakam ak Rufisque ak Keur Massar ak Ziguinchor Bignona euh, foofa jaar démb yëngu na askan wa jogoon di yëngu-yëngal ngir ñaawlu tejum loxo tegum loxo Ousmane Sonko yéen a kaabi di turbine ne mbir yi dafa reetaan lu sax kenn xamul la muy nurool euh, Bougane Gueye Dany jàpp ne ay pexe la yoo xamante ne procureur euh, mu ngi koy teg ci ndoddu Ousmane Sonko Déthié Fall ne lépp ngir gantal ko ci élection présidentielle yu 2024 waaye ñoom ku jeg politique bi duñ ko seetaan dañu taxawu Ousmane Sonko bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom moom Déthié Fall ci turbine yéen a Ousmane Sonko euh, dañoo gis ne dañoo jalgati sax article trente euh, trois cent quarante et un bu code de procédure pénale nañu tegee loxo Ousmane Sonko démb ba yóbbu ko ca garde à vue loolee moo jàdduwul mu ngi ci yéen a di euh, vingt quatre heures ci xëtam bu njëkk yéen a kii di le soleil ne garde à vue la goo xamante ne ma nga ca Ousmane Sonko fas yéene jàkkaarloog leneen lu yees ci ay dossier am càccum téléphone ak ërtal nit ñi ci wàllu fitna moom la procureur toppee Ousmane Sonko gannaaw itamit li nga xamante ne jot na ko siwal ci page Facebook am moom jiital Pastef doon sakku ci askan wi ñu jóg taxaw jàmmarloog nguur gi fi ne yéen ki abi di l'observateur ne beneen mbir gamu jata jàmmarlool bees moom Ousmane Sonko di mbirum càccum téléphone ak yee fitna yéen ki abi ne ñaari mbir yi de moo nara gàllankoor Ousmane Sonko njiital Pastef gannaaw ci jàkkaarloom ak enquêteur ya jotu leen a tontu yéen ki abi du ñu dégtal nañ ko tegee loxo foofee ca cité kër gi ak gendarme bu jigéen jigéen nga ko doon filmer te yëgul moom njiital euh, Pastef yéen cabinet lañ doon euh, gëstu di ko séntu ba ba léegi euh, di clamer contre x ala xam yéen cabinet mbir ya tàmbale naa feeñ Ousmane Sonko lañ koy toppee ci bile dossier bu deful ndànk lu toll ci juróomi atu kaso jàpp ñaar fukki atu kaso mun na ko caa fekk moom njiital Pastef yéen cabinet di Source A ne nar naa soobu ci week gu nar a gudd lool moom Ousmane Sonko mi ñu teg loxo démb yéen cabinet di A ne jege jot nañ koo ñaawlu ci biir yéen a kaabiri Source A ay député yu jot nañoo jébbal recours Euh, conseil constitutionnel ngir mu neenal dogal bi nga xamante ne assemblée national jël na ko keroog euh, bëgg fee jëlee euh, kër loole nag dañ ne nañ ko delloosiwaat bokk na ci ay avocat Pastef yemuñ ca jóg nañu taxaw ngir gantal candidature Khalifa Sall ak candidature Karim Wade ci les élections présidentielles yu 2024 ñoom ñaar ñi le war ñoo bokk ci yooyu la wote yen kabili direct news ne bokk na ci la ko tax a jóg Dora Gaye fexe ba soñu ndaw ñi ñu sàmm jàmm ji fi ne ci Sénégal yëkkati drapeau national ca kaw yéen a kii di direct news ne moom la amal ca arène national yéen a kii di Dakar Times ne li am ci sommet Russie Afrique yéen a kii di ñu xam lek fanweeri euh, groupe euh, maanaam fanweeri kuréel ak juróom-benn euh, yu russe fas yéene nañoo taxaw ngir jox engrais Afrique ci googu ndaje nag njiitu réew Burkina Faso jot naa yekk lu mel ne xeme njiitu réew Afrique ne dañuy dem ca bitim réew ngir majal yelwaan loolee nag la njiitu réew Sall jot a tontu xamle ne daal ñu jógee di dem ca tugal yelwaan taxu leen a jóg mu ngi ci yenn a bi di Dakar Times yéen a bi di stade mu ngi ñu dégtal euh, Sadio Mané ma nga nar a teeri ji ca Al nasr euh, jot naa sax daanaka tàqalikook Bayern ba noppi tey jii ci dimanche gi. di amal visite médicale am saytu wérgu yaramam bu pare nag fas yéene wutali Al Nasr foofee ca Arabie Saoudite yéen cabinet gaynde gàngoog jóge na ca maanaam na gamu ne woon fekk ji na Cristiano Ronaldo yéen cabinet visite médicale am tey jii la koy fas yéene amal moom Sadio Mané e nara signé nag contrat gu tolloog ñetti at fileeg 2026 payoor ga nag du na lool ndax la ñuy bëgg di fay Sadio Mané at mu jot dina toll ci e ñaar fukki e milliards ak juróom benn ci suñu euh, xaalisu CFA yéen kaabi di suñu lamb ne bëgg nañu amee xaalis ci lamb ji euh, combat yi nga xamante moom la ñu séntu euh, ci dimanche gi Garga 2 ak ambulance Modou Dia ak Dame Sène yéen kaabi ne combat yu nar a neex la arène gi nar a yëngu ci weekend gi yema fu ñu jeexale xeetu yéen kaay yi tënk la woon incha allah dañ leen ko yaatalal ci xibaaru digg bëccëg gi lu nuyoo tàgg.

77 57 11 Sufa wu joni joni daal mooy mos dolli. la ilaha illallah.